lu jumbam àttan layu gaa yi nag la koo wax rek mu ne ah laa yukallifu laahu nafsan illaa wus'ahaa waaye dégg nut noonu de loolu dëgg la yàlla du teg bakkan lu mu àttanut moo tax lépp lu mu fartaal ci rek xamal ne àttan nga ko ndax oto bi tubaab bi defar autorisé ko nangami place wala nangami ton tubaab ba da koo xam vingt tonnes yeeg dix tonnes yi tubaab xam na ko waaye boo fi amoon oto boo xam ne bii dix tonnes la nga koy def trente tonnes dina dem ak moom de waaye oto baa dul yàgg loolu yàlla xam na ko ba duñu teg lu ñu atturut yàlla bu fekkoon day wax ne bu kenn jullee lu dul ci naaj wi nga xam ne ci la ñuy sujjóot suñ jëy yi kon balaa yàgg ñun ñëpp ñu escanté waaw bu yàlla ne woon six mois ngeen di woor kon ko seen ma nga yooyu nar laa yukallifu laahu nafsan illa wusaha lum ñu teg rek àttan nañ ko laha bakkan bu nekk moom moom maa kasabat lépp lu mu def wa alayha moo refit mak kasabat lu mu fàggu bakkan bu ne loo def ci lu baax yow lañ koy faye waaye loo def ci safaan yaa ko ref laha wa alayha ñaari baat la de laha moo moom lim fàggu wa alayha moo ref lim fàggu kenn du resel kenn li nga fàggu def sag caay caay beneen waay ñëw res ko déedéet def sag mbaax beneen waay añe ko déedéet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat léeg-léeg nga dégg ku jàng ma ik kasabat i bi bu kenn du ko jàng liif gu dee la hamsatul wasli ma kasabat la ñuy wax rabbana yow suñu borom ñoo ngi lay ñaan laa tuwaaxisna yàlla boo fayoon teeg ñun inna sina bu fekkee fàtte nañ ba def loola naqari wallaay rabbana yow suñu borom laa tuwaaxis naa yàlla boo fayoon teeg ñun inna sina bu fekkee fàtte nañ ba def loola naqari aw axtana wala ñu juum ba def loola naqari yàlla boo ñu ko jàpp rabbana yow suñu borom wala taxmil yàlla boo ñu sëf yàlla boo ñu teg alayna ci suñu kaw isra yéen bu diis isra mooy lu nit mënut yàlla boo ñu ko teg kama xamaltahu na nga ko sëfe na nga ko tege woon alal lazina ci ñi nga xam ne min qablina ñoo jiitu woon waaw ña ñu jiitu woon dañoo yàlla da leen tegoon lu ñu àttanut ndax ñoo ko defoon ñoo ko defoon yàlla demoon na ba ne banu israel ku seeñoo ti dee lekk yàpp moom dag na waaye ku seeñu dee ku lekk yàpp wu duuf dee wallaay ndeysaan mu naqari ci ñoom lool waaye ñoo ko def ndax dañoo jubadi rabbana yow suñu borom ñoo ngi lay ñaan wala tuhammil naa yàlla boo ñu nattoo maa laa taaxatu lana bi loo xam ne amuñ pexam def ko waafu anna yàlla yàlla nañ ñu baal waxfir lana yàlla nañ ñu jéggal warxam naa yàlla nga ñu yërëm anta mawlaana yow rekk yaay suñu kilifa fansur naa yàlla na ñu dimbale alal xawmil kaafir na ci yéefar yi foofu la sooratu baqara yem tabarkàlla bañ koy jàng ca daara ja foofu la yemoon defe naa yokku waatu fi diggante bi yàlla ñu yàlla defal tawfiix la ci ne ci njàngale lépp yàlla ñu ko yàlla baaxee ba ñu am kàttanu dund ko tabarkàlla ñoo ngi ci suñu ñaareelu saar muy alu imran ñetteelu saar kon alu imran madina la wàcc moom it nekk ñaari téeméeri aaya al imran gis nga ni ñu nosee alquran bu kenn yaakaar ne saxaaba yi dañ koo tàng ci kéemtaani alquran la bokk ni ñu nosee saari alquran yi fatiha moo jiitu baqara tege ca ali imran tege ca nisaa yi tege ca baqara dafa ñëw fekk fatiha bi fatiha ñëwee dafa introduire alquran introduction boo xam ne bii ngeen baal tubaab yi dégguma tubaab boo xam ne bii ëmbaale na bootaale lépp lu nekk ci alquran ñu tudde ko ummul quran yi mooy ndeyam teg ko ci kaw nag lépp lu ñëw ci rek di firi ba di firi fatiha Bakara ñëw firil la ko wala yahudi yeeg nasaraan yi seenu mbon indil la wàllu fiq indil la wàllu société ni mu war a tëdd ci wàllu koom-koom économique moo xam biir réew la moo xam bitim réew lépp doxalin wi mu indil la ko tënkal la ko daan lay indil nag saa bii ñu bëgg a dugg muy alim alu imran alu imran wala ne la benn famille yi nii boo xam ne li may li may jàngale di ko junj ci alquran ñu ko dund ngi nii ñoom dañ koo pra dañ koo pratiquer du théorie moo tax bu bu buy jeex da lay indil nisaa yi ne la li tax aali imran baax nag seenu jigéen a baax famille boo gis mu baax seenu jigéen a baax rek famille bu bu yàqu nag seenu jigéen a yàqu maa la ko wax boo gisee dëkk bi mel ni mel fi nekk nii jigéen ñee rek tabarkàlla foo xool gis leen ko muyu la dëkk bi yàqu alimran ci saar yu guddi yi la bokk ñaari tomb yu am solo la jàngale bi muy tàmbalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabaraka wa taala bu ñaar bi mooy at tashriya muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rek ay yàlla waxtaanee annubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéem a indi ay njaxas alquran yàlla dafa digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suuratu baqara jëloon na yahuud yi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Aali Imraan bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani Israil léegi fii yaa ahlal kitaab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñëpp day dellu rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi ji nekk ci ñoom ñëpp ñoom tubaab yi wala boog ñoom nasaraan yi beneen wàll gi mu jël ko nettali ci xaswatu badar xaswatu uhud ak dars yi ci saaba yi am métit baag rôlu naafiq yaag ya ci aju yépp saar bi dina ko jàngale bi muy jeexal mu ne yaa ayyuha llazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha laallakum tuflihun jël nañ ci Nawaas ibn Samaan mu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu yamal xiyaamee alquran day ñëw ñu indi waa alquran ñi nga xam ne daanañ jëfe alquran Baqara ak Ali Imran jiitu leen hadis bi muslim nettali na ko yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko ba mu jeex ndax Omar nee na na ngeen jàngal Ali Imran góor ñi te jàngal suuratu Nuur jigéen ñi mu ne góor ñëpp war nañoo dégg Ali Imran waaye jigéen ñëpp war nañoo dégg suuratu Nuur yàlla ñu yàlla baaxee ba ñun góor ñi ñu dégg Ali Imran alhamdulillah bismillahi rahmaani rahim alif laam miim yàlla moo xam lim ci namm man xamaguma ko allahu yàlla laa ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul moom yàlla alxayu moom rekk mooy dund dundug dëgg alqayumu moom rekk moo taxaw taxawaayu dëgg lu dul yàlla sa dund dana jeex lu dul yàlla sa taxawaay dana jeex lu dul yàlla sa dund daa am fu mu tàmbalee lu dul yàlla sa taxawaay daa am fu mu tàmbalee dañ laa taxawal ku dul yàlla boo taxawee dañ laa taxawal yàlla kenn taxawulu ko subhanahu wa taala alxayu alqayum yàlla nazzala alayka moo wàccee ci yow nazzala alayka moo wàccee ci yow diirub ñaar fukki at ak ñett alkitaaba téere bii di alquran bil xaq ci fulla fulla wàccewu ko ngir musiciens yi jël ko wàccewu ko ngir artistes yi jël ko da ko wàcc bil xaq ci fulla ku bëgg ñàkkaloo alquran fulla weddi nga yàlla koo fi dégg muy way alquran boo xaritoog moom yàlla nee na xaritoog nga ak ku baaxul soo ko ñaanalee ñaanal nga tooñ kat alquran bi mu ñëwee ci fulla musaddiqan lima bayna yadayhi dëggal la ko jiitu woon dëggal tawraat dëggal injil dëggal sabuur wa anzala tawraata yàlla wàcce tawraat wal injila ak linjil gis nga alquran daf ne nazala tawraat mu ne anzala injil mu ne anzala anzala mooy nii la ko wàccee ma sëkk ni cëpp nazzala nag mooy da ko doon wàccee bu tayee moo ci aaya bu tayee saar loolu mooy nazzala étape par étape noonu la yàlla wàccee alquran min qablu lu jiitu alquran hudan alquran bi mu ñëwee mu nekk njub linnaasi ngir nit ñëpp góor jigéen mag ndaw ku julte ku julte wut linnaasi wa anzala alfurqan mu wàccee furqan les dix commandements mooy suufi Muusaa ya yi yépp suñu borom tabaraka wa taala wàcce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy judduwaale sa sa bii am may la ko téere yi dañuy ñëw pour di orienter li nga xam ne mooy culture nit ñi tubaab bi lañ ñëw dem moom fas yéene moderniser culture yi jàmbur yi loolu la yàq adduna si yépp moom tubaab bi su boowoon tubaab bi ñoo ngi woon ci suratu Al Imran ay ñeent suñu borom tabaraka wa taala mu ñuy wan téere yi tuddal ñu yépp alkitab al tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne inna allazina kafaru ñi nga xam ne wedd nañu bi ayatillahi ci aaya yàlla yi ñooñu lahum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yàlla nañu ci yàlla musal wallahu te na ngeen xam ne yàlla azizun ku tedd la zuntiqaam waaye day fayu yàlla ku tedd la waaye day fayantoo day fayantoo mooy du moom ci boppam moom yàlla mooy gàddu la di la dóor waaye yàlla daa rabbe adduna loo xam ne soo tooñee yàlla adduna ay fayu loolu la ñuy tuddee ay ay loi historique wala loi naturelle xaw ma nu ngeen nu leen neex ngeen tudde ko yéen jàngal tubaab yi waaye mooy yoo xam ne boo tooñee yooyaa lay gaañ mel ni tey tabax bii ma tiim su benn waay ñëwoon di daaneel ci ñun ñëpp ñu ne cel toog di continuer tafsir bàyyi ko nañu wóor ne mbir waa nangu mooy su kii daanoo lii day daanu xaañ ma kon lii sama taxawaay mooy bu tàmbalee yàq ma tii ci loxoom ne ko saa waay loolu la yàlla wax sun ci xam yonent bi nee na yéen ak àdduna yéen a ngi mel ni maanaam ñi ne ci li yàlla yi digle ak ñi ne ci li yàlla yi tere yéen a ngi mel ni gaa yu nekkoon ci benn bateau bi ngeen di tukki ngeen tegoo bant am ñu yëg ci kaw am ñu ne ci suuf ñi ci kaw ne ñi ci suuf ne saa bu ñu maree di ñu yëg ci kaw ñu daal li ñuy ñuy gêné gaa yi neexuñu léegi nañ bënn fii ndax ñu am fu ñuy jaare ndox mi yonent bi mu ne buñ siiwul ci seen loxo yooyee bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñëppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayugu yàlla daal du mooy gàddu yet di dóoraate mais adduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar daal da ngay lakk rek ku jóg jiit mu feet la rek maa la ko wax ku seex yëngit mu àddala ci gémmiñ yàlla aziz waaye son ci xoam inna allaha yàlla laa yaxfa alayhi du ko ump shay'un dara yàlla dara mi butuwul ci moom fil ardi ci suuf waaye dara mi butuwul ci moom ci asamaan wala fi sama lu caageg ci asamaan amul lenn lu ump yàlla lu waay di def fil ardi fi samaa yi loolee umpul yàlla huwa alladi yàlla ki nga xam ne yusawirukum moo leen bind fil arxaami ca biiri jigéen ña kayfa yashaawu na ko neex nam xam ne noonu la leen bëgg binde ñii mu def leen ñu xu- ñu xees ñii ñuul ñii njool ñii gàtt ñii rëy ñii yooy kayfa yashaaw nu ko neex moo tax su bindee jigéen kayfa yashaaw bu bindee mu ñaaw da koy def mu saf xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawee ñàkk xorom àdduna tukki kayfa yashaaw waaye léeg-léeg mu bind ko mu ñàkk xorom lool tubarkàlla waaye rafet ndax bu ñàkkee xorom ba noppi ñaaw àdduna tukki li ja li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom boobu moom yooyu yombut wala ñaaw ñàkk xorom yi yombut moo tax da ngay dégg ne ndaama ba pare ne ndaama day sax xorom wala ndaama day nang wax ci dara dal njoolit ñaari day kii waaye njoole ba noppi sax xorom it ñaari loolu la suñu borom def kay fa yashaaw moo tax ku ne nam la def noonu naa baax yow ñi ñuul la indi fii ci booru Afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dékku waaw moo tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam fi day tàmbali jafe day tàmbali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi nder bi mu yor léegi mënu fee nekk wallahi yàlla rek a yàlla kayfa yasha moo tax boo fi ñëwee di xeesal pour bëgg a génn ca na na melal mu génn ci yow waaw loolu la tax góor ñi mu leen di saxalal ay sikkim ndax dafa rafet ci góor mu am sikkim mu dal ko fii ay ay benn ruq soo xam ne dafaa def lu mel ni ay sànqaleñ ñooñu ñooy alimenté sikkim bi moo tax loo ko wat wat day ñëw rek parce que affaire boobu boo ko opéré woon nag du doon sikkim ma tax jigéen ñi duñ ko am te sikkim beneen affaire la am na fee garab gu ñëw ñu ko wax viagra ku am sikkim du ko soxla waaye boo mu sikkim léegi te nga dem yàgg rek nga ne waaw garab bi ñaata lay jar ngeen baal ma mais c'est des réalités yoo xam ne wallahi ndeysaan yàlla rek kay yàlla kay fa yashaw tet tet tet yusawwirukum fi l arxami kayfa yasha laa ilaha illa hu kenn du yàlla ko dul moom al azizu moom mooy ko tedd ki ba lu ko neex sañ na koo def al hakim mooy ko xereñ ki mooy ko muus ki yàlla huwa allazi moom mooy ki nga xam ne anzala alayka moo wàccee ci yow yonent bi alkitaaba alquran minhu am na ci alquran ayatun ay yoo xam ne muhkamatun dañ leen a xereñe hunna ay yooyu nag umul kitaab yi ñooy nday téere bi ñoo tax téere bi jóg maanaam ayat muhkamaat mooy ay yoo xam ne bu ñu ko waxee rek nga xam li muy tekki yooyu nag loolooy cosaan téere bi mooy base bi lu mel ni kutiba aleykum siyaam leer na ku lu mel ni kutiba aleykum alxitaal yàlla da koy wax rek nga daal di xam maanaam lan lay tekki hunna umul kitaab ñoom ñooy baasu alquran wa uxaru am na yeneen mutashaabihaat ñoom dañoo jaxasoo ñu bari ci ñun xamuñu leen ndax soo ko tekkee nii rek benn waay tekkee ko ne ku bëri tappale ku nekk yàlla de moo lay bëgg a wax mu ne tappalekat yi aayooyu rek moo leen intéressé tappalekat yi aayooyu rek moo leen intéressé kon ñaari aay ñu am muhkamaat ak mutashaabihaat muhkamaat yi ñooy umul kitaab mutashaabihaat yi kenn xamu leen ko dul yàlla waaye déglul mu ne fa amma allazina ñi nga xam ne fii qulubihim dafa nekk seen xol yi zayqun ak jeng jeng nara jubadi fa yattabi'una ñoom dañuy topp maa tashabaha minhu la jaxasoo au lieu ñu ñëw fekk aay yu leer yi ñu ne ca dañuy dem ci aay yu jaxasoo ya kañ la Isaa di wàcc nan lay wàcce nuñ ko reyee xaw ma ngeen baal ma nuñ ko nuñ ko doon fexeele yooyu ca la ñuy nekk ngeen baal ma ci nuñ ko reyee parce que kenn reyu ko yu demee ni ki alif laam miim xaamiim yu demee ni ki yaa jooja maa jooja ñoom Alexandre le Grand Xadir ak Moussa yooyu daal ca la gaa yi nekk rek waaw yàlla mu ne fa amma alladina fi qulubihim zayg fa yattabiuna ma tashabaha minhu moo tax ñuy tuddee chia chia fii itam dañ fi jéem a liggéey di wax ne ahlu sunna xamuñu alquran ndax am na lu ñu xamul ci alquran te ñun lépp lañ xam yàlla ne déedéet li ma xam daal mooy aay yooyu ku ko topp ku nekk da ngaa nar a jubali rek parce que xamu leen ko nga ne yàlla lu tax ñu koy topp nag mu ne ibtixa al fitna ibtixa al fitna bëgg fee indi fitna rek wa ibtixa at tawilihi ak jëm koo firi ñaar ibtixa al fitna wa ibtixa at tawilihi fitna ji mooy koo seen ñaare mu dof ci mbedd mii aay yooyu lañ ko jox ak ci bari yaa amun yaa saxakun yaa alakun yaa yesu yaa amun yaa saxakun yaa alakun yaa yesu rek ma def ci mbedd bi maa la ko wax de ma def ci mbedd bi parce que yooyu boo ko wootee te xamuloo ñooy kan xamuloo fu muy tàmbalee dof rek waaw ilmul lasraar te Sénégal da ko soxla fi ne boo waxee ñaan boo ñibbi ñu dox la saas ñaan gi ah tabarkàlla boo waxee benn baat ci rajo bi ne ku ko wax nam nangam rajo téléphone yi allo saas ñaan gi allo saas dicté ma ko allo rek gars yi nag xam ko ba am na ci ñooñ dañ lay bindal ay baat nan la alif un la lam trente mim quarante soixante onze un plus sept égale huit ñu naa ñu naa cëm ça va yi trois fois huit vingt quatre c'est le vingt quatre vingt quatre heures tey nga sànq de yooyu ci la ñuy jaar jële ci wan yoo xam ne da no- nombre yi chiffre yi day dem ba léegi ay chiffre d'abord lay doon ci yow di wax ak yow man am na ci loolu moo la ko jàngaloon fi mu nekk ci garaaw bi mu garaaw bu sa soxla ëmbee boo ko calculé mu wax la jigéen la ëmb mbaa góor dafa garaaw parce que yahud yi ñoo ko fi indi yahud yi ñoo ko fi indi yahud yi nag ibtixaal fitna da yee fitna ndax ñëpp mënuñu ko ci tiir yaa ngi fi ku def nangam am nangam man xaala haasa man kataba haasa ku si kar lii nga daal di jël yow yow yaay kan nga daal di jël yow yaa ngi taqrib am nga ndaw sooy seeti ba léegi ku la jox loxo nga jox ko loxo nga dem taxaw buntu kër yàlla ne ko asalaamaaleykum ak sa taqaay la ilaha illallah bu la waxee loo fi wut rek nga gën a dof daan yaa la mun yaa ko xam waaw fii di palais boo fay dem di seeti le président de la république dafa am fooy jaar ah dafa am fooy jaar pour am audience bi ba jaar ba jaar ci yoon ñu wutal la audience boo ñëw correct dëgg la ah yàlla nag moom léegi doo ko jaar ci ko war a jaar nu ñu ne baxaan na ko moo jur boo ko defoon boo ko defoon feexam ak sa waaxoog sa sub jiin bëgg dugg pale du sori de waa ji def nii moo la waxee foo jógee alaw waxum laa da ngay sol ay folataak ay kilotaak topp sa boppam ñoom seen yooyu nga dem fee yàlla itam daa am fu ñu koy jaar waaw ña ko daan def doo koy def dañ daan def riyaada ñun fukki at ak benn ngay def riyaada ci ismulaay yi ñun fukki at ak benn ngay def riyaada te ki la koy jàngal kat ñun fukki at ak benn loo ci am moom nga koy jox lu mu la def loo nga def nga xëy benn bis rek jënd benn téere ci trois cent francs gis ci ay affaire rek commencé affaire bi du noonu ah loolu ñi nga xam ne fitna lañ bëgg ñoo koy jéem a yee ak jéem a xam lu baat yooyay tekki yàlla ne kaay ma wax la lu gàtt wa ma yaalamu munta xam tawilahu la baat yooyu tekki illa allah ku dul yàlla ñi bëgg fitna yi dañuy continuer wax ji daal ne warasixuna fil ilmi déglu bu baax nga yeew fii lu am solo dañ lay wax ne wa ma yaalamu du xam tawilahu la muy tekki illa allah ku dul yàlla warasixuna fil ilmi ak ñi am xam-xam yàlla ne déedéet wa illallah dafa am point waaw wax ji foofu la yem xool leen seen téere am na benn mim bu ndaw illallah taxawal wa rasiquna fil ilmi beneen phrase la parce que boo ñëwee ne illallah wa rasiquna fil ilmi taxaw fi soo ko bëggee teg fi boo ne yaquluna amanna bihi gëm nañ ko yaa ngi bokkaale ndax nee nga yàlla nee na gëm na kullu min indi rabbina ci suñ borom la jóge nee nga yàlla am na borom loolu des na ko wax gis nga affaire bu garaaw gi ni moo tax yàlla ne ibtixaal fitna rek ibtixaal fitna wa ibtixaa tawili tawilahu kon fii yàlla def ne wa ma yaalamu muntaxam tawilahu la baat yooyu tekki illa allah kurub yàlla ta deux point mu ne nag war raasiquuna ñi jéeju nag fi ilmi ci xam-xam ñoom duñ fa nekk di ko gëstu ñoom yaqulun dañ naan ñun day aman naa gëm nañ bihi ci yooyu kullun alquran jëpp liñ xam ak liñ xamut min indi rabbina ma nga jóge fa yàlla mu leer nañ ñi